dikkati na gaa yaa nga naan coow laa nga cëppandub teen ba tribune yéene kaay ne dama ne dialogue bu amee ba ñu rancé siis bu boobaa ca ngoon kan mooy profito nag dëgg-dëgg ci bile dialogue yéene kaay bi dee média bi naan man loo ci mënti déggit ab lëkkaloo am na diggante président Macky Sall ak maître Abdoulaye Wade ñoom ñaar daal fi mu ne seen cere saf na ñeex tribune ne ma fi mu ne député yu wàllu yi ci boppam moom président Macky Sall daf leen tegal mbaal ne leen te sa rax dugal rax ci dolli di xëcc nag xam nga mool yi bu ba naan ay sidee yéene kaay Macky Sall def député yi yeewi askan wi xam nga dañoo taaj ñaar ci doom yu président Abdoulaye Wade Karim sa Wade ak Idrissa Seck ne ko tànnal Sall ngaari lam tooro buur gédee daal di waaxu jaagar jaagari ba jàkkaarloog doomu Abdoulaye Wade ji di Karim ne ko daaro Wade njaag fara Wade njaag yu xumi ci songum xeer tegal sa loxo ñu dem laaj ba nag samp moom moo di lan moo tax président Macky Sall nag choisir te ba muy choisir Karim la choisir daal di fi nag bàyyi Idrissa ay ñooñu Idrissa Seck yéene kaay ma fari Njaay bu réew mi ña nga naan koon la woon te ba nii wul en tout cas fi ne président Macky Sall moo bëgg waa PDS kay l'enquête quotidien naan man fi mu ne PDS te day dem ca dialogue ba leer na waaye nag dafa tegal ay condition président Macky Sall bokk na ci nag ñu daal di yëraat bu baax a baax a atteb Karim Meïssa Wade bi mimi naan leen da ngeen di xaar fi mu ne da ngeen di teg xel dil la seen digganteeg président Macky Sall tribune yéen kaay naan man bindu googee ñuy daal di waxtaanee lu toll ci ñaari téeméer juróom ñett fukki junniy doomu aadama di sénégalais daal sàkku fi ne daal di bokk ci liste électorale bi le témoin yéen a kaay naan maan ñetti téeméeri junni kay daanaka Sénat nee na ñoo daal di bindu fii ci élection yi turbine naan maan booba Sall ngay sàkku dialogue bi ci réew mi 24 heures yéen daal di sampub laaj ndax nag Bougane Gueye dane gëm sa bopp daañu dem ca boobu la dialogue Mamadou Gueye l'original ci yéen a kaay bi naan fédération départementale gëm sa bopp bu Ndakaaru nee ñu ñoom benn dialogue mën la bëgguñu ko di sàkku nag ci njiital gëm sa bopp Bougane Gueye dani mu daal di respecté lépp loo xam ne daal dinay bàyyeekoo ci pàcc gëm sa bopp yi nga xam ne ma nga ba bitim réew di sàkku si président Macky Sall mu respecté loi parrainage bi waaye tam mu organiser ay élection xam ni day leer leer nañ te naan gay F24 nga bokk bul ko fàtte F24 daal lu mu mënti dogal ànd ca man mandat yéen kaay naan man dialogue national bi ci réewum Sénégal coordination nationale bu ndaw yi gëm sa boppit ña nga naan ànduñu ci benn dialogue ñu bokk ca waaye tam benn dil duñ nangu ñu daal di koy teg ci ndoddug askanug réewum Sénégal tribune yéen kaay naan bugaan gay dani ci boppam daal dina ni acam dialogue ba naan ñëwuma gannaaw Ousmane Sonko ak Aminata Touré ndawu gëm sa bopp yeeg itam fédération bu ndakaaru nee ñu bugaan bul wuy ji tey buy wuy ji ëllëg ndax nag fi mu ne réew Sénégal fi mu tollu dem toog ak président Macky Sall daanaka dil ak moom la te dil moom mooy dil ci ndodduk askanuk réewum Sénégal fi mu ne réew mi fi mu toll lu la F24 santul bul ko def yow gëy waa gëm sa bopp naan ñaar ci dialogue am na ci réewum Sénégal amul benn résultat boo xam ni joxe na ko waaye itam amul benn avancement boo xam ni def na ko ci suñu démocratie day taali ay dialogue yoo xam ne ay calcul politique moo ko andi ci réew mi te dañ dul nangu dialogue ci réew moo xam ne fi mu toll ni àq ak yelleefug doomu aadama ci boppam la ñuy jël di ko caxat-caxatee di ko salfaañee di tàbbal géej réew mi ko dajee naan man ana àq ak yelleefug taskatu xibaar yi ci réew mi ni ki nag ñuy màggal nag bëccëg bi nga xam ne liberté de la presse lañ ko daal di jag jagleel Sénégal ci boppam fi mu ne bu doon tasum xibaar guy la fi yëngu na Sud Quotidien man liberté la presse dañ koy dégg rek ci réew mi Bamba Kassé secrétaire général bu simple ci yéenekaay bi naan benn taskatu xibaar bu nekkee ci kaso bi daanaka ëpp na ci mim réew Ibrahima Lissa fay njiital appel ci sud naan bi yoon dey mooy bu njëkk ci réewum Sénégal ñuy màggal bés bi nga xam ne tasum xibaar lañ ko daal di jagleel ak ub liberté fekk nag taskatu xibaar dëgg-dëgg mi ci biir kaso bi tribune yéen kaay naan eggagul kaso waaye jege na ko Babacar Touré bu kéewaloo dafa mujj defub malaise ba ñu mujj koo rawale ca l'hôpital principal Ibrahima Lissa Faye naan li am ci réewum Sénégal doy na waar amul ci mennum réew Bougane Gueye Dany naan ci tribune yéen kaay li tax bugguma dem ci président ndax nag du ma ko koo xam ne ma ngay tëñ-tëñal akub askanam ku yëngu mu tëj l'évidence yéen kaay naan man moo taxit loxo ba leen sàll ngaari lam tooratàlla loon waa gëm sa bopp nee ñu ko bankaatal sàll fi mu ne daal suñu xeex lenn dong la mooy sa ñetteelu mandat bii nga bëgg samp ci réew mi forcé ko réewum senegal duñ ko nangu dialogue ba daal dinay jolli Maodo Malick Mbaye ci tribune yéen kaay naan bu dee Ousmane Sonko mi mu Touré ñoom ci boppam bëgguñu ñëw ci dialogue bi bu ñu influencé kenn ngir mu bañ a ñëw Maodo naan Sénégal réew la moo xam ne fi mu ne dafa nekk ci pant cant goo xam ne maar day taali réew nag bu tolloo foofu ñi nga xam ni dañ ko war a pencoo dañoo war a séq waxtaan toog waxtaane ko lépp daal di ànd ak dal daal di ànd ak jàmm le témoin yéen a kaay naan waa COJER day dàq nañ bépp forme dialogue boo xam ni nag day tax président Macky Sall du am ñaareeli quinquennat ci réew mi beneen mandat président Macky Sall ci réew mi Moussa Sow njiital ko COJER ne dee ko dialogué ko mu neex ñëw ko mu neex toog waaye daal dëgg-dëgg dialogue goo xam ne dañuy daal di négocier ndax Sall day samp ndëndëm déet Moussa ne ñoo bañ te naan képp koo xam ni nag ñëw ngir dialogue seeg président Macky Sall te boo ñëwee tegal sa mandat bi ci suuf nga koy wax jarul nga yegg si ndax mi yoon ak càtt ko ko may ko ko xañ Le Quotidien Le Quotidien ku su bokkul ma la bi lay na réew mi na parti yi waaye tam tas na tasar coalition yi yéeni kaay bi naan maan yeewi askan wi diggante Khalifa Babacar Sall ak Ousmane Sonko conflit d'intérêt moo ca am dialogue ba nag daal di tàmbale xaajale ña nga xam ne nag ñooy leader bu l'opposition bi critique yéeni kaay naan man fi mu ne day yeewi askan wi ku nekk sak agenda nga bokk ko nag di jaagar jaagari wuti yoon wa nga xam ne jàpp nga ne fa nga mën a amee jàmm waaye tam yoon wa nga xam ni moo la nar a ubbil buntu pale ba gogèr naan leen ko gedd dialogue bi daal yaa xam waaye man ak sàll bi deesu ko négocier tur bi yéen kaay naan man ca kaw la gid njaay raxma daanaka lu ni mel la wax ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk comité yoo xam ne daal dina koy samp ca kaw la njaayum carte gi mel ni tulleeg maale ca kaw moom ministre conseil bi daal di taxawal ay responsable yoo xam ni juróom ci ci kaati ci commune bu Kaolack daal dinañ koy taxawal daal di koy wër ndomb sabab gi mooy sampaat président Macky Sall direct news naan man waxtu woowu Amadou Ba ma ngay jël ay militant di leen jañax ci président Macky Sall xaadim ja daal di def rentrée politique am Amadou Ba naan kon nañu sampaat Sall mooy dëgg ndax nag man Amadou président Macky Sall laay sampaat te moom laay liggéeyal kon ku may liggéeyal nañu ànd dooleel Sall mu amaan mandat ci réew mi tribune yéen kaay naan man ay ñoñam naan kon geesuñu président Macky Sall fi mu ne Yankhoba Diattara dem na Alé Salé dem na waa commune bu Sandiara naan maire ba di docteur Serigne Gueye Diop moom ci boppam la ñu sàkk mu daal di ni saraax ci gouvernement gi source a naan man waxtu wa Ousmane Sonko ngay doxantu nam ko safee ca yoonu Gàmbi ga naan désobéissance ki day tàmbali bis ni ki tey waa gouvernement gi dal ca kawam dudu ka ci critique kaay naan kon fi mu ne lëre sénégalais yi nga nekkee waaye dugal réew mi ci kaawa goo xam ni maar day taali ba nga demee bay jiñ takk deri dañ la bëggoon faat njombe googee kenn mësu koo gis mu ne confiance ba askan wi amoon seen bakkan yi fi mu ne confiance boobee nga bëgg dindi jël suñuy institution yi nga xam ne ñoo ñuy aar wili pande leen bitim réew xajamal leen ni bañe bu wadd ci suuf duudu kanaan lii saaga mënu koo gën a ci réew mi te naan koon war nga xam leen ci dëkkub démocratie benn yoon daal lañ ci daal di nangu moom moo di respecté la nga xam ni moom moo di république bi te respecté république bi dafay jaar nga respecté institution yi waaye itam respecté lépp loo xam ne teg nañ ko réew mi muy charte luñ teg nga salfaañe ci mim réew duñ ko ko nangu ëllëg moom Ousmane Sonko ne dañu maa faagaagal caxat caxatee ma tooñ ma liñ ma teg ci réew mi teguñu ko benn homme politique te ba ñu demee procès la instruction ba jeex fi ne fu ma neex jaar te génn naa def désobéissance dem gambi Ousmane naan tër ma ci réew mi ne nagu sarax kenn waxul faagaagal gu ne gu dund naa ko ci réew mi kenn waxul fi ne nag maay def désobéissance ba xam lu ci waay mën le soleil yéen kaay naan man sàll moom ma ngay doxal vox populi naan man booba na jugewul ci réew mi ñoo xam ni ay primo votant lañ waroon bindu ji ñoo daal di caxat caxatee préfecture bu ndamba maar day taali l'observateur naan maan lu toll ci ñaari téeméer ci explosif loo xam ne ay ndëgg sërëx mën naa kalaate ak itam juróom-ñett fukki loo xam ne da koy kalaate loo di détonateur daal dinañ koy teg loxo diggante frontière Sénégal ak Mali libération yéen kaay naan maan tey ma xibaarati la ci soxna si nga xam ni moo nekkoon ci tiktok bi naan gynéco la moom soxna si nee ñu dem na bay tàggat nag ay étudiants yoo xam ne nee ñu dañ doon jàng wàllu gynécologie ba ñu laajee soxna si doon wax docteur la lu tax ngay defi consultation ak a xamal ni defu ca lenn man fukki junne ñaar laay fayeeku par weer doon liggéey ci as clinique soo xam ni ci tur kese la daan am lopp fukki client par bés client bu ci nekk daan nga fay juróom benni téeméer consultation ñoom ñaar ña séqoon clinique ba kenn jàngu ca te ku ñëw ñu ne la da nga am infection ovarienne moo la tere am doom jox la ay traitement yoo xam ne xamuñu fuñ ko jëlee ba ñu demee ca enquêteur ku ne joxoñ sa moroom naan ko du man yowa du man yowa du man yowa ba fi mu ne ñu ngi leen di defeere ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog